waa tasaare ko waaye cheikh wor kurusam def nga ay ba foo mën a jëm ak tuyaaba joo mën a tax ñu faale la yàlla buur bi kamay ci tabam ne ñaanu ko ko parce que si ak asamaan jël mayam tasaare ko chadeliyu ak caraxiyu ak junaydu ak saqatiyu ak fudaylu kul waliyu seeni xel xalaatu ko yàlla bi moo ko ko may cik tabam na ñaanu ko ko fal ko suuf si ak asamaan jël may am ko moo jaboote xutbu samaan yi moo leen may caleer ya ñu naan fal suuf si ak asamaan jël may am ko yow boo dee si faaw ñu yëngu xam kan mooy yegg si moo waral ñu yooyu kàddu asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ak contentement ci teew fii ci seen biir ci ndigalu sang bii toog di Cheikh Ibrahima Aïdara ak ci jigéen yi ñett rek mën naa tax ñu bég ci bokk ak yow jotaay waxuñu sa deret di deretu yoon ci yàlla boobu rek mën nañoo bégal ci bokk gi ñu bokk ak yow jotaay waxuñu nekk di nga nekk muqaddamu Cheikh Ndax Cheikh Ndax ci bokk gi yi lay jox bari loolu waaye ñu doyloo ci rek di jugee ci alxaaji Abdoulaye Si Dabakh te mu wér ci ñun mën naa tax bég ci bokk bi ñu bokk ci yow jotaay waaye bi ñu gën a neex nag ay dara Chérif mooy si jukkoy bopp nga baax lool mën a dimbalee lool mën sa njaboot te boole woon dara ci wax sant yàlla bi ñu yàlla booleeg sa njaboot wax naa démb li ma booleeg yow du ma ci dellu si waat ndax man di ñëw ci yow ak di nekk sa keppaar sàkku sama ngeen mu ñu koy jur ndax sama bàyyi ma boole woon ak yow li ma boo bëggee may bég lu gëj ci shérif lu gëj ci sax sëriñ bay si ab di loolu fuutu kon ma toogee fii jëmm jee toog sama nijaay la maa ko invité mu jóge Nantes ñëw ci bis bi El Hadj Papa Niang kii mu dendal surtout ma Samba Jéeri dem na tanaat maa moom Serigne Mamour Ndiaye ma jàngal Alxuraan góor gi Amady Ndiaye maa ngi ko ñu ak soxna Xabsa Dieng du Serigne ma Samba Jéeri dem kii di seen xarit ànd ak ñoom yóbbu Chérif ñu ngi am mbégte loolu ak contentement ci fekk le fii ci sa biir njaboot la ren waaye boo newoon fudul fii lu mu sori sori te mën la faa fekk ñu fekk la fa ngir say jikkoy bopp waxuma ngir sëtu yonent bi rek nga de déedéet boo doon sëtu yonent yàlla Muhammad te valeur yi ne ci yow newul ci yow dinañ la xormaal ngir sa maam waaye fi ñu la teg sa jikkoy bopp a tax ndax nit bokk na fi nga bokk te du mel ni nga mel nit bari na xam-xam loolu te du mel ni nga mel kon cër bi nga am ci ñun sa jikkoo la ko may te ñun nag ay jaahil ay doomi daara lañ dëkk ci daara dana convaincre ñu ci mbaax yombul ku ñu daaneel ci mbaax rek am na noo mel ndax gis nañ alxaaji Abdoulaye Si Dabaax mu wax ñu dégg mu jëf ñu gis mu jëf la dégg nit ba tàyyi bu fekkee def lu baax convaincre ñu ci yombul tax na loo gis kon ñu ngay ziar bu si Mouhamed Doucouré euh, ñu ngi jégalu kàddu yi juste da nga doog rek fu dugal shérif incha allah boo daanelee laataa gàmm gi tàmbali ñu di tam ñu allah du nuyu nag nga baal ma moom nuyu ñii ndax ñoom laa waroon a jëkki ah. jigéen ñii maa ngi leen di nuyu bu ngeen ma ko mayee ma nuyu góor ñi bu ma ko mayul ma bañ leen ndax ñii def ma ak ñoom nen man dem naa nee naa Chérif du ma wayee li man ay góor man ñii laay wayal ndax góor ñi fi sax dañ koy teyal ñii nag dañuy fi tasu booleeg seen i pochette jege na leen samay way yéen ko moom. Abdoul Soritas ci ñun Sénégal lu ak moom rusu wuy ngalam. ba ñuy woo asant ca jullit jumaa ja xel yépp tiitoon te ànd ak ngërëm ba ñuy naa ku koy jiite ñi naa xanaa asant ma naan cey li ci ñàkk a xam fama arjabal abdu lama ala ca kaw dimbin ba mu jóg jàng discours ba yemloo xasanta mu tàccu talaan ci gisee sul kemam ba wallaay boobee su dul konte moom mi Sénégaluk jantam du weesu acam ba bur makka di def congrès talaan jiitu lislaam bi laa bëgg a mu wax kaab ambassadeur bii fi ne ne ko woon ma Abdoul Aziz si mooy gëgëm mu jox paas bu ànd ak te naan ko Abdou Mam Maodo naa gis jëmmam ndawal buur la teewal sa uut jóg taxaw ne fii kenn du fi dem dul ab du dem keroog muhammadul habib si ak Seydi Nourou Tall njilee tax mu jóg jël décision ci dem ñu daan koy ni falaa udra tey nii mu déggul li ñuy wax mënu la njëkk a am sëriñ ab yaa ñuy demal ci réewum su demee du ndam sëriñ ab yaa ngi demal ci réew mu arab ku dul yow ci min su demee du indi ndam ku dul yow ci min réew mënula dem dafay indi xeebeel te du am mu ne Seyxu Mbàkke jógal kon ñu dem ku dul yow amul fi du mat fee ñu yaay sët ci Bàmba di taaw Moustapha Mbacké te doy leen da ngaa am gannaaw am kanam na ñëpp def ni ñu màggal Xaaji Abdoul Aziz Sy Malick Sy ñu jóg àndandoo jëm te réew mi Hijaas ñira ñaara am ngor te ñoo bokk jëm na la leer ni réew mi Hijaas doon di ñoom di yab Sénégal ngir ak Abdou moo leen ëlëm ba yàlla ba mbooloo di yéem abdu naan ci dañoo njort woon ne du ñooy gis jëmmam mu faf rem bi rem yoon ñu fii bu dul woon ak yow ñun bu ñuy xel di jëm sëriñ abdu yaa mag yaa jara damaa réere woon mbir ci yow maa la sagal ngaa di sab réew na bur yàlla fay la da jëm kanam te baax a baax te sëriñ laamiire nit ñi jëriñ borom daraay bee daanooy lool ba ni fëriñ ku baax taxul ni moom bu réew mi ci moom jiital ko jox ko li moom xam ne bëggul juróom mu yóbbu borom su amoon nit ñi nelaw su lii amoon jàmm ji taw su lii amoon seytaane daw xam ngeen ni lii moo war a abdul aziz si malik si dal bi bi yaa ko soloon fii tarixa cheikh bi yaa ko safaloon sab suñu gaal gi di sénégal yaa ko kal nekkoon mu suux ñépp a ko xam maam abdu daalam ci góor gu baax ca taraayam bu jekk bi jaawam bu rafet boobee daalam ci baax xoolal mu def ñépp rifaax xamul lu ñaaw mënul si xaax ku mel ni moom yomb la am alhamdulilah donc ci euh, teewaayu Chérif ñu ziar ko tatagal ko dalal ko euh, feddaliwaat suñu kóllëre moom ci kàddu waa ren aussi ñu feddali waat kóllëre kóllëre ak moom ci kanamam tey ak ci kanamu njaboot bi xam naa ca nomat peut-être ci ñëwaat ndax loolu ginnaaw mooy mooy mooy boppu gaal gi donc mooy niit mbir bi te bu ñu ko jéemee niit ba mu ñëw ba tem mu xaw a sooxe moo tax rek ñu yemandi foofu donc li ñu commencé woon mooy sant yàlla d'abord julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te fàttali leen ne julli ci yonent bi ndaw mm-hmm. encore une fois du ndaw ndax ku ko def benn yoon du samay wax yonent bi ngay ko wax du kenn yonent bi moom moo ne ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon ma doon wax ni ku góorgóorlu ba yàlla nangul la sa benn salaatu ala nabi benn benn yàlla ku mu julli ci yow du la duggal safara ndax yàlla ku xas bëgg dafa naan asamaan suuf lépp lu ma bind man yàlla bëggal yonte dañu ko nettali nee na yàlla su bëggee jaam lépp lu yàlla bind da koy bëgg te yàlla du julli ci ku mu bëggul ku yàlla nangu sa benn salaatu ala nabi mën nañ ne texe donc loolu ubbi la woon rek euh, li ñu Thierno Oumar Sassoon ndax maa ngi fàttaliku barki démb rek bu mu naan imam bindal ma ne ko waa kon nag dinaa bind waaye ginnaaw waxtu yi daf ñoo njabt te ñu ma ci wàllu famille musulmane kër kër jullit nu mu war a mel xajul ci jàpp ma ne pour wax ci lu ci trente voire quarante minutes ba tax na la may tënk rek jéem tënk nag lu ma mën li ci njëkk moom mooy yàlla subhaanahu wa taala ñi jiitu woon yonent bi sallallahu alayhi di ay yonent yëpp ay miroir lañ ci ñun mais benn la ci yàlla validé muy bu yonent bi sallallahu alayhi li tax mooy moom yonent ñi ko jiitu fa ñu tegoon seen tànk fa la teg tànkam seulement moom yàlla daf koo jox lu mu joxul kenn mooy mu am possibilité dindi indi falladina amanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabacu nnuur alladi unzila maca ulaika humul muflixuun bi yàlla di wax ci juif yeeg nasaraan yi dafa ni qul yaa ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia fekk lu ko jiitu mu ne wa katabna lahu fi l alwaaxi min kulli cheyin waktub lana fi hadihi dunya xasana wa fi l axirati inna hudna ilayka qaala adaabi usibu bihi man ashaau wa rahmati wasiat kulla chey fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yu'tuuna alzakata walladina hum bi ayatina yuminuun man alladina yattabicuuna alrasula annabiya alummiya alladi yajiduunahu maktuban indahum fi ltawrati والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم c'est-à-dire li leen li leen di sonal wal aglaal allati kaanat alay donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw dindi indi dafa dindi ay difficultés yoo xamante ne bi mën naa joxe rek benn exemple xam ngeen banu Israël yàlla daf leen tere woon ñuy lekk li ñuy li ñuy wax kefta yàpp bu àndul ak yax yàpp bu difficile bu nooy bu neex bi yàlla leen ko tere woon ñoom daawuñu ko lekk yàlla ko wax di boo demee ci alquran di ko fekk qul laa ajidu fi ma uxiya ilayya muharraman ala taa'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan fekk lu ko jiitu wa ala alladina haadu xarramna kulla di dufrin wa min albaqari walganami xarramna alayhim la ca duuf mooy suxuumahuma shuhumahuma illa ma hamalat la leen yàlla mayoon daal mooy biiru xar illa ma hamalat zuhuruhuma aw il hawaaya yaani al amaa aw maxtalata bi am wala lu jaxasoo yax nga xamante ne da ngay da ngay seeñu yenn saa yi am lu la jam yenn saa yi leneen jaar na ne yu xaw a metti yooyu daal waa yooyu ñoom daaw leen ci fekk yi neex yàlla da leen ko tere woon ndax puni leen parce yàlla moo ne terewuma leen ko ndax dafa baaxul ci seen santé yu ni comme dañu doon dëgër ak yaquba ak yaquba parce que yàlla moo ne euh, ci lan euh, tanaalul birra lu ci topp kullu taami kaana xillan li bani israila illa ma xarama israilu ala nafsi yàlla ne faf xaraam na faf faf li ma fa bëgg a wax rek bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko ni ñëw nga li fi nekkoon ko mais dindil indi mu dindi indi donc ñun aussi suñu wàllu njaboot bu dañuy dellu ca la gën a kawe ma bëggoon mooy ñu waxtaan ci Seydina Ibrahim mi imaam bi bi sallallahu alayhi wa na mu yore woon saarata balaa moo takk haajara ak na mu satisfaire saarata ñu jéggal ma sama maam la waxuma ci ay caprice mais jigéen saarata en tant que jigéen ak yenn yi nga xamante ne mën naa dal jigéen ak xorma bi ñu war ci soxna yonent yëpp waaye terewul woon moom saara te mu doon jigéen te boo xoolee Seydina Ibrahima alayhi salaam dafa gérer situation ba bi yàlla tegee Haajara la mu ko teg te fay ko tey njool Màkka fay saarata euh, Yaquba fay ko Yuusufa ba Isa alayhi salaam waaye moom c'est-à-dire Haajara mi meññi Ismaïl yonent bi génn ci meññum yonent bi boo ko tegee ci balance balance teg ñeneen ñi ci balance mu daaneel ñëpp ndax yàllaa ko yónni lépp ba mu ko yónnoo ba lépp ba mu ko yónnee ba keroog jant bi di fay ba keroog jant bi di fay complètement parce que والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء wa ma banaaha wal ardi wa ma taxaaha li ci nekk lépp ba keroog muy jeex képp ku fi juddu def lu baax dañ koy dugal dañ koy comptabiliser ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koy comptabiliser ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi dalal bu baax euh, suñu tonton Sylla Abdoulaye Sylla euh, donc euh, looloo taxoon ñu bëggoon a jël exemple ci Ibrahim mais ñu envoyé ligne rek ñu bismillah sëñ Abdoulaye jërëjëf bismillah ñu envo ñu wax ni ñi rek ñu dellu xoolaat euh, histoire Seydina Ibrahima alayhi salaam ak dundinam digganteem ak Haajara ak dundam digganteem ak Saarata ñu jógee foofu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi moom mi nga xamante ne moom la yàlla wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana euh, defal naa leen si ñu ngi lay ziar baax a baax dalal jàmm si Euh, moom mi nga xamante ne yàlla nee na moom mooy suñu modèle moom sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu modèle ci côté yëpp mooy suñu modèle ci wàllu personnalité démb rek maa ngi koy wax ci ci ci xutba ajjuma personnalité musulmane nan la war a demee un musulman naka la war a comporter dans une société boo xamante ne bii elle n'est pas musulmane yonent bi wane na ko ca Makka wane na ko ca Madina wane na ko ba mu delloo Makka waa Makka di ay yéeféer moom képp mu ñëw ak njabootam mu joué li gars yi di wax jakkal nañ cest mu ñëw nekk vraiment à la hauteur am doole mën a wane dooleem am lépp lu leen ci dagal idhabu fa antumu tulaqa kii moom mooy gor bu ñu wër gor ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa boo ko dépassé dootoo gis gor ndax la nga doon wër danga koo bàyyi sa ginnaaw mooy am doole mën ko internet bi soxna yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo xëy rek def comme gilets yi waaw daal di commencé di manifester waaw dañoom ñoom daal la ñoom mer magi saxaaba yi ñi mel ni Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane daal di dugg fitna ñoom tamit ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci biir ne ko ñii daal comme dañuy jaay di ba tege leen de côté yàllaa wàcc di régler problème bi ya astafirullah yàllaa wàccee aaya alquran pour mu wàccee problème bi yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika ne bu dee ay ges ñaar rek ngeen bëgg alal képp ngeen bëgg ay oor kese ngeen bëgg fa taaleyna umatti'kunna ñëw leen ma jox leen ba ngeen doyal waaye nag bu ma leen jamila même ma leen di bàyyi nekk comme ni di defee bàyyi naa la xuloo non non alam yàlla da ngeen dem di may dem di ree waaye in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara al alors là fa inna a aadda lil muhsinaati minkunna ajran azima donc il faut que ngeen ñam li yonent yi di ñam ndax bu ñu leen bu ñu dumaa euh, soxna bu nekkul soxna si yonent benn yéen ñaar lañ leen di donc bu ñu leen fayee benn yéen double lañ leen fay ñoom lañ leen di fay boobu la ñu ñëwaat pour wax ne rek problème yàgg na ci famille mais ginnaaw yow góor te ginnaaw yow it jigéen nga yow góor yàlla ne la yonent bi mooy sa modèle yow jigéen yàlla ne la boo amee problème déglul Muhammad te topp tànki soxnas Muhammad donc bu problème perduré c'est parce que am na si ñun ñaar ku tegul tànkam ci yoon bi xaw ma ndax dégg lañu wax bi yonent moo ñu gën ñun ñëpp lépp mu def ci yàlla la jógee xam nga dañuy yaakaar ne wax yu révélation alxuraan kese la alxuraan kese bu révélation yonent bi xool bu xippee xool sax wax yu la révélation la parce que du moom maa yantiqu anil hawa du moom in huwa illa wahyun yuha bu doxee révélation la bu waxee bu juumee sax révélation la te bu juumee waxin la ndax yonent bi li ibrahim ibnu aashir bi wax wuquuha bihim tasallin xikmatu wuquuha bihim tasallin xikmatu yonent bi bu feebaree waxin la su doxee waxin la su yàlla wàccee ne ko yaa ayyuhan nabiyyu eh, yaa ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al asra lawlaa kitaabun min allahi sabaqa waxin la mais yonent bi kenn daa nekkul ci kawam du Umar du keneen ak keneen ak keneen bu xam-xam bënnul nag boroom mën naa jàpp leneen lu dul li ne bu xam-xam bënnul boroom sama benn xarit bi ñuy wax Mamadou Anne mbokku Thierno Omar dafa doon wax gàndal seeda ko poson ci pulaar nee na xam-xam bu néewee poson la waaw parce que waa bu déggee bu déggee téel rek danaa ndàmb la donc ñoo xam ne rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy suñu modèle te problème day am fii nag dañu dund dañu nekk ci société boo xamante ne bi problème yi dafa bëri xol yi xat te nit ñi yàkkam ci problème yi bëri te bu problème bëri xol xat c'est-à-dire xol du ubbeeku bay laaj xel lu régler problème te bu yàkkamti amee musiba amoo xuliqal insaanu ajula yàlla nee na euh, nit dañ koo bind mu yàkkamti yàlla bind ko ci ak yàkkamti mais nit a yàkkamti laqad xalaqna al insana fii kabad mais indi woon fi ay point yoo xamante ne bu bëggoon naa ñu partagé ko mais waxtu yi du ñu ko may euh, juste problème yu bëri ci ci famille yi dama ciy jaar rek ci bu façon bu gàtt bu yàlla mayee te incha allah peut-être beneen jotaay dinañ ñëw ci lan mooy famille ci diine mais laa dañuy wax problème yi rek pour que ñëpp bàyyi ci xel jàpp nañ ne euh, bokk na ci li nga xamante ne bi mooy tax kër yii di gën a yëngatu ñàkk bàyyi xel bi bàyyi waxuma yaay yi de ndax kër dafa am kuy jiitu nit ñi topp ci ginnaawam firiwut ne dafa ëpp doole firiwut ne day firaaw na firiwut ne dafa war a nekk dictateur mais yàlla def mu war a jiitu nit ñi topp ci ginnaawam ñu bëri ci ñi ci famille yi dara dafa nekkatul seen bët lu dul utul xaalis soxna si day xëy dóori comme ni nga waxee góor bu ñu wàccee ngoon tàngal la fi nekkoon duñu waxtaan ak xale yi xale yi du ñu ree kër gi bu am dund kër gi bu amul dund nag mbëggeel ba leen boole woon ma waddatan wa rahma ba yàlla waxoon mais dafay dee ndax des koy dundal yàllaa fi bàyyi garab bu ngeen ko seetaanee suuxatu leen ko day dee loolu dafa bokk ci pro ci problème yi le fait que nit ñi seen lépp dem ci ginnaaw matériel boo jëlee sa lépp muy tourner autour du matériel amee matériel boo moytuwul da nga joxewaat matériel bi pour jël la la la weesu loolu yàlla na ci yàlla musal loolu benn la beneen bi euh, bi nga xamante ne bii jàpp nañ ne dafay indi problème lu bëri surtout ci jàngkatu daara yi ñu ñu ma jéggalu sama bopp te jéggalu daawul ak ak yi ah. mooy jàpp bi ñu jàpp ne bu yàlla ne arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i li yàlla di wax mooy yàlla dana jox naa leen yéen góor ñi doole ci kaw jigéen yàlla weesu na fu muy ñàkkee maandu ñàkk maandu bu toll ni mu sàkk góor sàkk jigéen jël góor teg ci kaw jigéen ba jël jigéen teg ci kaw góor yàlla weesu na loolu wa maa rabbuka bi dhallaamin lil abiid yàlla du tooñ te ñi ko ñenn ñi surtout jànkatu daara yi jàppee ne yàlla dafa jël góor ñi ne leen ah jox naa leen doole imposer leen comme ni ko ñenn ne yaakaare imposer leen bu kiiwee waxal xaddam tigul boo duggee ci kër gi ñëpp daw xale yi daw ñu yaakaar ne loolu mooy qawwaamuuna dañoo juum mais al qiwaama suñ ko waxee ci arab masuuliya la responsabilité la mais du doole ndax yàlla ëpp na fu muy jëlee doole di ko jox nit pour mu utiliser ko ci ci ay moromu nitam te moom yàlla mu maandu ba ci lool boobu di deuxième point bi ñetteelu point bi mooy ñàkk gi ñàkk sentiment suñu ko waxee nag xam naa ne ni imam mooy mais sentiment ak partager li ñuy wax amour wala mahabba bëggante gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que parfois am na ci ñenn sama xamatoo Cerno Umar comme moom laa ñemee ñoom peut-être dañuy jàpp ne boo jàkkaarloo ak sa soxna ne ko bëgg naa la dangaa xaw a xosi diine te ci bi ak bëri woon lu mu koy wax ay soxnaam fàttali ñëpp xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak ami euh, digganteem ak Khadija radiyallahu lu nekk la wax ci Khadija bañ nañ ko bay soxnaam sax dañ daan fiire Khadija alors que Khadija dundatul woon donc bu soxnaan Khadija doon dund moom nu muy mel soxna Khadija ci dundam yonent bi takkul kenn mais terewul buñ ko waxaan mu yoon ci daan wax ci soxna Khadija nit ñi dañuy sentir ne kii xol bi am na ci loo xamante ne bi la ko occupé woon nekkatu fi tellement que dafa reconnaissant moom bi sallallahu alayhi wa sallam mais est ce que loolu dafa tax mbëggeel boobu mu ko bëggoon jàkkaarloo na fekk euh, kenn laaj na ko ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa koo gën a bëgg mu ne ko Aïcha mu ne ko ci góor ñi mu ne ko bàyyi Aïcha lépp ndax bëgg bu mu bu mu bu mu wane ci sayyidatna Aïcha radiyallahu anha est-ce que dafa firi ne moom kese la bëggoon li mu bëgg wax foofu rek mooy nit ki li ngay bëgg ñu la koy jox danga koy joxe bu ngeen ko bokkee dem beeg dikk bi day fluide mais su dee jógee ci benn sens te du ñëw ci beneen sens bi bés day ñëw làmmiñ nagam bu làmmiñ nagamee xel ñaaw bu xel ñaawee coow bëri te bu coow bëree bu góor doonul góor jigéen toogul palaasam kër ga tas yàlla ñu ci yàlla musal boobu mooy ñaareelu point bi beneen point bi moom mooy euh, ñeenteelu point bi wala juróomeel bi mooy ñàkk bi ñuy ñàkk équilibré particulièrement ñun africains yi ñàkk bi ñuy ñàkk équilibré li ñuy wax euh, euh, ferme fermeté ci éducation ñàkk bi ñu koy ñàkk équilibré ak euh, douceur bi yàlla laaj ci kër ndax yàlla waxul jigéen waxul góor wàcceel gi lépp lu ñu wax rek nga ne oui ou non yenn saa yi il faut nga jouer le jeu c'est-à-dire loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon def yonent bi daf ko doon def c'est-à-dire xool yi nga xamante ne bi da ngaa war a ferme nga ferme jamono yi nga xamante ne bi da ngaa war a bàyyi mu jàll que boo lu sikk lu ne nga lu jënti ko yaay mujjee sikk ndax dala dul am temps ndax parce que liy sikk dafa bëri dafa am lu jar wax am lu jar a wax loolu nag responsabilité bu partagé la diggante góor ñi ak jigéen ñi soxna yi bëgg nañ boo tardé cinq minutes chaque minute nga nga nga nga wax ca la nga nekk te loolu nag bu yàggee day xaw a metti góor ñi bëgg nañ kanam boo indi bu ñu comprendrewul mu bëgg laa la rek par il faut que ñu xam lan moo nekk ci xol bi yenn saa yi nag nit ki dafay am envie bañ a wax c'est donc li ma bëgg a wax di mooy parfois diine yonent bi daf ñoo jàngal mën a wax waxuma war a wax de mën wax te noppi ku war a wax nag te waxoo yàlla dana la laaj moo la teree wax mais mën wax am droit bi am doole ji ne ah maa ko moom naa ko denc. moom la xam ba ca. waaw xam ba ca baax. te ku def nag lu jot rek lu jóg nga wax farata day ñëw nga wax te kenn du la dégg ndax dangaa bari wax ba nit ñi xam ne dangaa bari wax waxuma di chercher lu comme jigéen ñi mais góor yenn saay kàddoom kàddu fermeté daf koo war a gérer kàddu yu neexam nag moom amul temps na kër gi neex ndax moom ndax certainement ju jigéen moo yor bànneexu kër mais essence bi wala gasoil biy tourner moteur bi yàlla góor la ko jox moo tax bu jigéen muuwee góor mu kër ga yàlla nañ ci yàlla musal beneen point bi nga xamante ne bi euh, tamit lu am problème la lu indi problème bu yu rëy la gëm gi góor ñi gëm particulièrement suñu mbokk yi gëm gi ñu gëm ne yàlla dafa jël baatu fase jox leen ko mu mel ni alal ju leen yàlla jox wala arme boo xamante ne bii lu jóg rek ñu ne dama lay fase de dama lay fase de te kaay ma kii tàggu ak kii yéegleem fase naru ko kii tàggoo moom ak kii yéegleem fase may xam ne ne fase lu dagan la ci diine ndax yàllaa ne nekk leen ci jàmm bu ngeen mënta nekk ci jàmm la ku nekk dem ndax diggante koor ak jigéen musiba ak ay dajee xajul exception la bu ñu xuloo rek exception la mais lépp jàmm la war a nekk loolu tax yàlla ne ko ci jàmm aw tasrihun bi ihsaan moom ci wax ak benn soxna ndeysaan bu nekk Afrique bu ma doon bu nekk Sénégal di ma woo di ma wax ci c'est-à-dire am ñun dañoo am ci yenn suñuy aada yoo xamante ne bii certainement lu baax la yenn sama yaay yi dañ ma ne imaam yaa ngi waral mais certainement lu baax la mais su bonoon yàlla du ko imposer da ngay gis soxna soo xamante ne bi malheureusement peut-être amul chance su jëkkër premier jëkkër ji di ko bon teg ko musiba teg ko fitna mënuñoo ànd ñu tàggoo yàlla nattoo ko une deuxième ñu tàggoo yàlla nattoo ko une troisième ñu tàggoo ñu bëgg koo tage te góor mën a am fukki jabar di ko fase te kenn du wax am justice ñu ne kii moom dafa bëggut a sëy wala dafa nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam mais góor gi moom mën na fase cinquante mille jabar amul problème quoi loolu nag dafa di aada mais du diine yàlla dafa juste donc ku euh, yàlla dafa deful ci biir kër place pour violence amul ci amul fenn ci alquran amul fenn ci alquran foo xamante ne bi yàlla indi na place ci violence ci biir kër amul donc passé tamit xam-xam bi xaw ma nag ndax ñoom Thierno Omar dañ ko doon nëbb ci téere xaw ma waaye daal xam naa ne gars yi gëm nañ ne ñoom fase arme la boo xamante bi ñoo ko yor seen poche bés bu ñu gisee lu ñu xam rek génnee ko te kaay ma wax la yonent bi nee ne baatu fase kenn du ko fooye même boo ko waxee ci fo sax dagg la benn waay benn waay woo na ma fii ne ma dama fase sama soxna dama ko wax fase naa la mais dama ko fekk damaa mer ndax ko dagg de mu ne ma non non non tu n'as pas compris j'étais vraiment en ma ne ko waaye waaye xamal boo ko waxee rek dagg na parce que man du ma charia yow doo charia man ak yow yëpp dañuy dellu ci téere bi indi bi moom mooy àtte man ak yow du ñu àtte ma may def ren moom mais boobu moom yàgg na trop maa ngi doon wax ak Thierno man dama xëy suba teel huit heures benn waay woo ma sama benn mbokk naar dama ñu ma am kër tas. wax ma ko arab ma ne ko déet waay ma ne ma ne ko lu xew ma ne ma ma ah, daal damaa xëy di xuloo soxna si benn problème bu ndaw rek ma ne ko fase naa la mu ne ma si ma ne ko fase naa la mu jël xale yi na kër papaam est-ce que bi dàgg na ah dàgg na de mu ne ma kii n'a pas compris ma ne ah si ce que tu si ce que tu m'as dit c'est ça c'est comme ça que ça s'est passé fase bi dàgg na mu ne ma non non non non non attends j'arrive à la mosquée comme ça je vais t'expliquer mieux suñ teguñ si 10 minutes waa ji Ville-Jean la dëkk teguñu si 10 minutes mu yegg si ci buntu jàkka ji ma jóg euh, dalal ko ñu waxtaan ma ne ko nag yoon ci bi dafay tere lii fase bi dàkk na mais bu la neexee nga jëlaat sa jabar tout de suite léegi léegi nii da dem rek jël ko ngeen dem mais di ngeen moo tax ñuy wax ne baatum passé dee su ko fowee te góor pour mu xa bu dee mu yëg ne góor la rek il faut que mu jóg fëgg dënnam ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Pape Samba gisuñu la woon ci biir jotaay bi donc pour góor ñu pour mu waree ak ngóoraam dëgg mu wax wala mu mu mu mu fëgg dënn bu dee loolooy wane ak ngóoraam booya mu xam ne du góor ndax yonent bi nee na góor dëkk ñu ngi koy xamee ci bu meree mu maîtriser boppam loolu nag yàlla mayu ma mayu ko ñu bëri Cherif ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu yàlla may ñu ko ñun ñëpp incha allah ba ñu doon ay dëpp dëpp yi góor ñi yàlla di wax minal mu'minina rijaal minal mu'minina rijaal beneen point bi donc ñu xam ne am passé du lu yàlla jox exclusivement góor ñi du lu yàlla jox exclusivement góor ñi waxtu yi nag dañu ko dul may te damay bañ bu ma ci bu ma ci continuer dem sama mbokk góor ñi fekk ma fii dama imam sa wax ni xaw naa bari loolu laa ciy waaye tamit am na beneen mbir boo xamante ne bii lu jouer rôle lu lu lu négatif la ci biir famille moom mooy papa ak yaay xale yi di leen xool seeni comportement contradictoire c'est-à-dire papa baax lool yaay kàccoor lool mbaa contraire bi yaay julli ku nekk bëccëg papa ji kenn ko gis jàkka ja kenn du woote ba mu moom daal papa ji ci bànneexu bàkkanam rek la nekk lu bàyyi lu yaay ji liggéey bàyyi ji bàyyi ji yàq ko ndax xale yi dañuy se dañuy xool donc loolu aussi baaxul il faut que ñu jéem a indi benn équilibre bi diggante ku góor gi ak ku jigéen gi ku góor gi ay jikkoom yu baax mu jéem koo partagé. ndeysaan bu ku góor gi ak ku jigéen gi ñu jéem a fexe ba seen jikko yu baax. ñu bokk ko ku nekk ci ñoom sa jikko yu bon nga fexe ba keneen ki gis ko dimbali la ci mu deñ ndax sëy jàppalante dese la kenn amul monopole dëkk gis nga yàlla xol subhanallah wax bi dafa ñuy dàgg damay tëjee rek ci aaya bi pour que ñu xam ni yàlla dafa juste ñu génnee ci suñu bopp ay ay yàlla dafa favoriser diw wala daa favoriser diw dafa favoriser benn entité wala benn famille wala benn benn groupe wala benn réew wala benn dëkk yàlla favoriser wul kenn moom faalul lima yurid te li muy def yëpp bi xikmatin baaliga ci ci sagesse bu extraordinaire la yàlla di sukkandiku buy jël alimu moom yàlla daf ñoo xam mais alxakimu daf ñoo xam moo tax muy sukkandiku ci sagesse am pour imposer xam-xamam terewul moom yàlla mu jox ñu wa rabbuka yaxluqu ma yashaau wa yaxtaar fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur te bu ko neexoon doon nooyi bu ko neexoon tout de suite doon nooyi moo tax may faral di wax ne nit ñi dañuy wax liberté d'expression ak liberté de xaw ma lan la ñu mën a wax mais yàllaa ko njëkk yàlla ci boppam moom mi sañ lépp mën lépp am lépp xam lépp taxaw fépp nekk fépp te dara ump ko moo jàkkaarloog iblis ba iblis di jéem a révélé wu te kenn mënta révélé wu yàlla da koo jéem rek yàlla ne ko loo soxla pour pour que li sa projet mu jàll mu ne ko yàlla may ma temps yàlla ne ko jox naa la temps bi pour cest yàlla jox ko moom les moyens pour que moom mu mun a opposé si vous pour que mu mën a opposé wu te ñëpp xam ne ne yàlla bu ko sooboon kenn du opposé bu ko sooboon day tënk iblis mais yàlla dañuy jàngal ñun looloo tax xissa yi nekk ci alquran du ay léeba gi di boon day ñu suñ maam yi daan léebal bu ñu bëggee nelaw lëga lëga kan la woon sax muy gën a bëri lëg ak xawma kan du yooyu de waaw waaw lëg ak bukki lëg waaw te du yooyu yàlla buy nettali histoire c'est pour que ñun ñu jëlee ci ay njariñ looloo tax mu ñuy nekk li looloo tax yàlla di ñu nekk li histoire yi mais gis nga ma ñëwaat ci point bi moom mooy euh, diggante